d' accord ah, dëgg yàlla waaw. <laughs> ci wër loolu am na am na am na solo bu baax baax dinañ def loolu. mais fi ñuy dugaatee dañuy dem nag. Mhm. Euh, ci ki nga xamante ni moom mooy Madiambal Diagne. waaw jamono bu Ousmane Sonko nekkee ci prison bi. <clears throat> donc moom daan nañ sax génn mu daan wax rawatina ci agressé bi nga xamante ni dafa nañ ko Maimouna Ndour Faye. Mhm. ak ah, génnoon na wax ba ni euh, ñi nga xamante ni ñoo takkee ci Ousmane Sonko ñoom ñoo def loolu. léegi ay avocat Ousmane Sonko. <laughs> dañoo porté plainte mu naan sax Ousmane Sonko ci boppam ndax moo ko jubóog ak ay avocat am ah, dañoo porté ma Madiambal Diagne mhm. ban njàngat nga am ci loolu aussi waa xam nga ma Diagne euh, dafa am pour man mhm. dafa am lu ko topp lu xam ne waaw dafa am lu ko topp lu xam ne buy génn télé loolu day feeñaale ci am toog ci wetam est-ce xam nga kenn musul invité ma jambal Diagne te amul ku toog ci wetam Hmm. am na ko ànd ak moom ku ko lëjal moom. loolu wax la. Mm-hmm. waaw xam nga loolu. Mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. waxal. mooy. jëf bi mu jëfoon mu ñaaw. moo mujjee soppaliku xarit. xaritam nekk ci wetam. léegi nag ñoom Ousmane sonk bu ñu ko bëggee tàqaleeg xaritam boobu mooy ñu tëj ko kaso. mais li mu nekk nii moo gën a metti mu dem kaso. kaso moo gën a neex. Hmm. parce que xoola askan bi yëpp dafa am fu ñu koy xoolee. dafa am image am luñ koy xoolee. luñ koy xoolee léegi boo ko yóbboo kaso image bi day dañ. loolu la bëgg a dindi moom muus na de xam na fi muy xeexee su fekkoon ni man maay ñoom Ousmane Sonko. Hmm. duma ko tëj duma ko wax dara. parce que moo ne Jimbori Alioune Tine loolu la wax. déggoo ma. man bu doon nañ ko def. waaw ba pare boobu ba léegi. waaw ba pare nañ ko may tur boo xamante ñu nekkoon ci opposition bi. ñu Sonko xeexal ñu ñu xeexal ba wañ seen loxo nangu réew mi si seen loxo ba do ba nekk ci réew mi. Mhm. boo ba léegi mënuñoo bokk xam nga loolu. dëgg la léegi bu ñu leen ci bëggee boole nañ leen yóbbu kaso. Mhm. fu ñu toll nii xoola opposition yu bees tax ñoo mën a génn mais bu ñu bëggee at opposition yi dee woon nañ leen yóbbu kaso boo leen yóbbee kaso rek yee nga leen. kon yow su ma la déggee. ñu bàyyi woon ki nga xam ne mooy ba euh, Madiambal Diagne ci dëkk bi nii nit ñi di ko xoole moo gënoon. non Sonko su ma ko mënoon gis. waaw dama koy wax mu bàyyi ñooñ am na jara yóbbu am na ñu xam ne jaruñoo yóbbu parce que ñi ngi kaso. kaso bul foog nit ki dem kaso tëdd rek moo nekk kaso am na ku nekk këram di fanaanoog jabaram nekk kaso. dëgg la xam loolool mm-hmm. am na ñoo xam ne nii nii nii nii am na ñu nekk kaso te nekk ñu biir kaso am na ñu nekk biir kaso nekk ci biti. parce que am na benn image boo xam ne boo ko xasee am ñu yóbbu la kaso yaa ngi ci biti dëgg la de waxal rek mm-hmm. am na benn image boo xam ne nii boo ko amee ci biti mm-hmm. ñu ñu bàyyi la ci biti yaa nga kaso am na ñu alaaxira gënal àddina nii mm-hmm. dee li muy naqari naqari am na ñu bëgg a dee nii dëgg la parce que am na loo xam ne boo ko defee di nga dem ba yow da ngay ñeeku dee da ngay gis ku am na ñu néew yi ñuy gàddu di leen suuli am ñu leen ñee am na ñu ñee néew yi de. am na ñuy romb armeel yi naan ndeysaan xoola ñuy tëdd bu doon mën a. Hmm. mu neex. fekk na la nga defoon moom moo tax. mooy soppaliku jaan matalaat. Hmm. dëgg la sooy def lu baax sa bopp sooy def lu bon sa bopp xayroon yoroo. Hmm. saroon yoroo. yàlla moo ko wax. léegi gars yi nag li ñu doon def moo dajaloo di dajaloo di daj ba pare gis nga ma wax la dara. réew bu nekkee di dox. ñi nga xam ni bu réew mi di tàkk. bokk nañ ci ñi nga xam ne bokk nañ ci seen seen kàddu dugg seen loxo dugg na ci. di ko xamb quoi. waaw di ko xamb ba ay nit génn ci àdduna nit ñooñu génn àdduna day nekk ci seen bopp ñoom. Mm-hmm. xam loolu mm-hmm. dañ lay wax ni moytul bakkanu nit nekk sa loxo. dangaa foog bakkan la boo xam ni yow yaa jël paaka jam nit ki wala yaa ko fetal déedéet. bu ñu kompaloo yi bu ñuy kompaloo nga bokk ca kompaloo ba képp ku fi jóge day nekk ci sa bopp. man léeg-léeg damay gis nit télé muy wax nii ma xam ne kii correctul. nekkul nekkul. ok barki rasulullaay ki ngay wax nekkul. dëgg la. nekkul de ba pare boo léegi kenn tudd ko mais problème koo laal mu génn kaasal kooku. Mhm. kon kay bëgg na ku ko laal. kii nañ ko bàyyi bañ ko laal bañ ko jege. ma jàmbal waaw ma jàmbal. <laughs> waaw xoola jàmb na boppam ba pare. gars buñ ko laal buñ ko jege nañ ko bàyyi mu dem. barke rasulilah bàyyi leen ko mu dem ba pare xoola damaa bëgg. Hmm. ñi bi Sénégal gi di boy ñi ko doon boyal yëpp bindal ma seen tur Abdou Khoudia nga jàppale ma ngir yàlla. Hmm. nga toog xaar waxuma entre ñoom ak Sonko. Hmm. yàlla est-ce que xam nga yàlla euh, euh, nit kii euh, ponkal la mu xam ne. buy commencé di ñëw ci yow di la dóor si. yaa ngi dégg. xetu yar bi dalay xeeñ ba pare mu doog laa dóor. Mm-hmm. ñii xetu yar mi ngi leen di xeeñ. d'accord du dëgg. waaw waaw. et mm-hmm. li leen ci mën a génne mooy. nga génn ni askan bi man kat maa defoon nangam waxoon nangam xoola bu ñu noppee tuuti dinañ dem ba lépp lu waaye waxoon ci roq di nga ko wax ci kaw. Mm-hmm. man maa la ko wax. d'accord loolu am na solo. mais mais tamit euh, jiboor yi euh, naam bu mu yëgee kan yi porté nañ ko plainte moom ki nga xamante moom mooy ma Madiambal Diagne moom génn na nee na moom ci ci ay droit am la nekk. nee na tamit bu mu fàtte ni Ousmane Sonko moom moo fi waxoon bis bu toogee dina jël ay magistrat changé leen te loolu la def loolu tamit moom nee na ci ay droit am la nekk kenn mënu ko li euh, nga xamante mooy tëj ban jàngat aussi. nga am xam nga tey Ousmane Sonko est-ce que nga Ousmane Sonko mooy politicien bi bi gën a neex a waxal. actuellement nii. am na ñu naan moo gën a naqaree waxal. déedéet Ousmane Sonko moo gën a neex a waxal. ok Bassirou Diomaye Faye sax. Mhm. neexut a waxal parce que amul wax bu xam ni. ay waxam daal kii yu fii. Mhm. waaw. Mhm. xanaa loolu Ousmane Sonko. waaw. changement bu amee lépp moo ko wax. Mhm. wax yooyu mu doon wax yëpp moo tege kuy noonam bu la neexee nga jël ci di ko ko joxaat. Mhm. mais waxu waxu wut ak waxu am ba pare. du benn mais dañuy jël ci bi muy wut di ko ko jox ci bi mu amee. dëgg la moo tax moo gën a neex a waxal. moo tax moom da ciy jël di ko sànni ay picc pour bëgg a dem. loolu la rek. dafa mhm. bëgg a dem bu dee man doo dem. Mhm. doo dem dama lay bàyyi noonu rek ñooñu bu ñu leen kenn déglootu leen sax. Mhm. seen solo mooy solo si. bi ah, leen fi bàyyi. mooy wax bi nit ñi di wax si ñoom dañ leen di yóbbu yóbbuwuñ leen. loolu am solo bàyyil ñi segam ñi leen jiite woon nekk seen patron ñi ñimeetu la génn asantamaat suq. dëgg suq. suq ay suq suq. man du ma wax ak suqu. d' accord doo ko daan ba nekk roi des arènes doo ko daan ba dégg daal. dëgg la de. waxa rek. Mm-hmm. waxa rek. Mm-hmm. mais da Balla Gaye laay xaar. waaw te mais du ma <laughs> du wax ak suqu. yaa ngi dégg <laughs> ñoom Sonko nañ bàyyi ñi ñi ay suqu lañ. waaw waaw mm-hmm. ma doon mbër nag di wax ak suq. lu dëgg. parce que entre Sonko ak. Euh, Euh, naka. wax di wax euh, entre Sonko. waaw ak euh, naka Madiambal. Madiambal seen seen différence dafa soriwoo. combat wu Sonko. ak mhm. combat wu mhm. mais du combat. du combat daal. balaa Sonko di balaa Madiambal di bëree ak Sonko. day fekk Madiambal ñëw ci géew bi Madiambal duggul sax ci stade bi kon kon Sonko du bëree ak moom. nañ mhm. bàyyi ñii Sonko ak Bassirou Diomaye Faye aussi mhm. Mhm. ñi leen wër nañ gën a nañ gën a defaru parce que ñun bi ñuy ñëw pouvoir euh, dafa am na ñu ñu faral mais am na benn waay benn waay bu duggoon ci campagne bi dañu campagneal boo ko Pastef te kenn bindul turam xam nga mooy kan mooy mer dafa am ñu mer sànnil ñu waaw daa ñu mer sànni. waaw <laughs> d' accord d' accord nañu fexe ñooñu kontaan. d' accord comprendre ni mu la wax <laughs> mais Djimbori ah, euh, euh, ci Madiambal li nga xamante ni génn na ko. Mhm. est moom loolu di ko arrangé. Euh, pour maanaam ñu tëj ko parce que pour ma gën ko may mu am maanaam li nga xamante ni ne visibilité waaw nit ñi di wax ñoom waaw est-ce tamit nekkul loolu moom moo tax mu génn bëgg na daal ne Ousmane Sonko mënu ko jàpp ak parce que ay droit am la nekk yu demee waa waaw léegi ay droit am la nekk mhm. nañ moom moom droit am la ak ci droit yi rek boo demee ba yow ngay patron presse. Mhm. waxatoo bu njëkk ba fan la daan waxee du ci presse am. léegi day woo nit sax pour dem wax ci presse boobu. Mhm. parce que presse kenn seetaanatu ko. Mhm. tey bu ñëwul Feeling Dakar wax. wala mu dem ci yeneen site yu wax. wala mu dem télé wax. kenn du dégg ni moom wax na sax. ci biir teleem. ak dellu ginnaaw biir teleem kenn seetaanatu ko. <laughs> fo. wax ma foo koy gis muy wax mm-hmm. li mu moomal boppam segam moo doxatul kooku <laughs> d'accord Dioufary d' accord loolu loolu loolu loolu am na man daal moom ñoo ak ak moom da ngay am seetlu. Mhm. ci moom bala ngaa xeex. bala ngaa xeex waaw parce que boo dóoree nit sax di nga xool ba xam kaawote na wala kaawul. nga mun a nga mun ko song. Mhm. mais di dóor te doo xool liir kii ñoom Sonko bu ñu liiree waa ji sax duñ si wax dara pour man nañ bàyyi côté boobu quoi. Mhm, du combat daal. non non non non ñooñu après leen di lëjëli rek. waaw yàlla ah, euh, loolu am na solo. Ah. nga xamante ni moom mooy waxtaanee nañ